salaamaaleykum tiktok noo leen def maa ngi si jàmm tey moom li ma yéem laa ñëw waxtaan ak yéen mooy mbiru Dubaay sama ginnaaw ci Dubaay fameux Dubaay bi ngeen di gis Dubaay ville de démb laa gis loo xamante ne ba ma juddoo ba léegi musuma koo gis foogoon naa ne àdduna du yàgg ba ngor nit may ko loolu suñu jànq yi suñu gel yi naay si ngeen di gis ci réseaux sociaux yi. rafet car forme bi taakal la allah tout le temps dans les endroits luxueux di photo ci endroit yi dem ci hotel yi ci ci ci di sol lu jekk boo leen gisee automatiquement yow da ngay bëgg melni ñom ñoom ndekete jaruñu dara dara dara dara dara ci bir aduna bi dembala gis lo xamantene man en tant que jigen dama vidéo bi dañ mako dama ko xool rek pare ci supprimer ko ñemewu ma koo yónnee sax keneen mu gis ko ndekete yoo seen get privé yi ñuy dugg di dem du Dubai seen jaay maanaam ñiy wane si image du Dubai ndekete ay naar yi riche ñoo leen di kitteloo seeni kër dem du Dubai bu ñu yégee Dubai automatiquement otel bu ñuy dal dañuy jël seeni téléphone bu ñu jëlee seeni téléphone dañuy nekk ci otel ba Nar bi dalen di fexi moy manam borom alal ji lu ko neex la len di utiliser man vidéo bu ma gis demba gel bi dañ doon ci gemmeñam di saw seeni gemmeñ di fanan lo ak seeni animaux domestiques Li lu ko fi jar lu xamantene da ngay xey bés rek bay ko fi lo xamantene bu ëllëgee bo taxaw ak sa borom mu laaj la alal ji nga doon utiliser si aduna bi no def ba am ko do ko meuna netali nettali ndax si ñaawteef mo nga amé lu fi jar ngay ngang keneen di jël lo xamantene ani mo sax du ko def nga mel mbam xoo di lek day pourquoi faire ndax xaliss xass bo ban njëriñ la la amal ci aduna bi ban la la amal xaalis bo du la amal parce que c'est anam ba Amela. innocent yi xel tout ce qui brille n'est pas de l'or Ni ngeen gis dem dubai di jay mana bu bu bu len dugg ci ndax ñi fay def mo salté mo mana salté ngeen man dama gis lolu dama tit bu ak lu ñu ci éducation ci ak valeur yi yàlla def si jigéen dayoo njaay réeral nañu lépp adduna bi jeex na dara desatu fi dellu leen seen